waxtaan ci nan la ñuy def ba appui bi nga xam ne état bi moo ko fi indi ak euh, ay bonne volonté ñoom ñoo ñu seet nan la ñuy def ba organiser ko ak euh, aussi euh, n'est-ce pas nan la ñuy def aussi ba ndox yi nga xam ni nekk na ci yenn barab yi ñu jëlee ko fa et ñu organiser wu aussi parce que nawet bi comme jeexagul yaakaar nañ jeexagul lu mel ni bu amaatee naka la ñuy def ba mën a faire face quoi. <coughs> commission yi am na commission logistique. am na commission recensement am na commission boo xam ne mu ngi jëm ci wàllu euh, wér-gu-yaram commission boo xam ne mu ngi jëm ci sécurité bi jëm ci wàllu finance euh, boo xam ni aussi hydraulique assainissement ak énergie la ak benn boo xam ni euh, nest ci logistique la jëm mooy wàllu lu jëm ci wàllu moyen wu naan yeeg oto yeeg groupe yeeg yu mel noonu commission logistique boobu lay boobu lay porte recensement bi nag je dois vous avouer que Euh, bëggoon nañu ko def depuis démb lañu ko bëggoon tam mais euh, bi ñu waxtaanee ak techniciens yi dañu ni un recensement boo xam ne recensement bu baax la bu exhaustif euh, yaakaaruñu ni mën nañ ko fa def fii ak nit ñi soxla si ñu am ñu réglé moo taxoon ñu ni pour mu gën a yomb dañuy jël waa waa les relais communautaires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Touba am nañ avantage yu xam nañ terrain bi déjà xam nañu psychologie dëkk bi xam nañu réalité dëkk bi moo gën ñuy dem di jëli ñeneen di leen indi situation est maîtrisée parce que boo xoolee euh, dëgg la bërki dem wala altine talaata am na ay euh, yoon yu bëri yoo xam ne kenn mënu foon jaar mais gis nañu ni bi altine di jeex euh, talaata bi ci ngoon rek xam na tali yoo xam ne ni ci suba si nit ñi mënuñu foon jaar waaye ci ngoon yi nit ñi jaar nañu donc état bi aussi ñëw indi ay électropompe indi ay motopompe joxe aussi ay moyens du carburant ak gis nañ ni joxe ne ay euh, résultats yu baax yoo xam ni euh, am na koñ yu bari yoo xam ne kenn mosu fa mën a dugg te donc nit léegi am na yoon yoo xam ni kenn daan fa jaar aussi nit ñaa ngi koy jaar niveau ndox mi daal vraiment wàññeeku na bu baax a baax. jafe-jafe bi nag fi mu desoon ba tey jii xam nañu ko yooyu moo doon yi nga xam ne moo gënoon a metti boo jëlee Ngiraaneen Ndaamaatu Euh, Kër Ñang n'est-ce yooyu mooy les points durs de Touba nga xam ne ñëpp xam nañu yooyu nag effectivement dispositif bi fi nekkoon ñi ngi koy renforcer ñuy profité di sant di gërëm ñi nga xamante ne euh, bi le ministre ou bien le premier ministre a demandé appel à la à la la contribution am na si kenn ki nga xam ne bu ñu xaymaa li mu war a indi ci Touba ci matériel ci ci matérielu pompage matérielu lal dana jege presque ay 200 millions tey si mu def ko en contribution nga jël tey jii mairie Dakar indi na lu lu tolloog juróom-ñaari moto pompe en contribution Eiffage indi na lu tolloog si ñetti moto pompe en contribution le groupe euh, Sendis même chose indi nañu seen ay 10 camions également mettre en contribution ONAS les services de l'État direction de la gestion des inondations la brigade nationale des sapeurs donc on a assez de moyens pour épuiser les eaux à Touba en tout cas démb libéré nañu en tout cas autour de la bëgg nañu tey tey tey moom lépp lu jege mosquée bi mu jeex tàkk parce que y a des pompes de gros débit yu nekk diggante Kër Sëñ Abdoulaye depuis démb foofu jeex na donc euh, tey jii ñi ngi Kër Sëñ Saliou jeex na Kër Sëñ Fallou moo ñu desee moo ñu desee jàpp nañu ne dispositif bu fa nekk fii ngoon dina jeex su jógee tamit dañuy continuer jëm booru Guédé parce que foofu également bokk na ci point yu gën a mais comme ni ma ko am nañu vraiment des logistiques des moyens lourds yi nga xam ne jàpp nañu ne koñ bu ñu dugg guerre métti na trop mais jàpp nañu tous les moyens que nous bu ñu ko fa dugalee du def ñaari fan ainsi de suite wàcc dem tokkoor ba wàcc dem ngiraaneen parce que tey jii jafe-jafe yëpp yëpp yëpp xam nañu lu koy waral en tout cas ngiraaneen ak ndaamaatu bokk na ci gën a métti ak Kër Niang et jàpp nañu ne dispositif bi ñuy def di ko renforcer muy ñëw muy dem pëf di di dem kër kàbbu dana soulager quartier yooyu bu ko defee yeneen quartier yi mën a ñëw